lépp lu ma am ci àdduna man c'est grâce à Babader du yaay du papa du mbokk du kenn xëy na nag jum na yàkkamti alalu àdduna bu dugal ko ci lu nekk ba ñépp mere ko waaye li muy juum juum mën naa laa seddeel man mi nekk ak moom ne xol bu rafet la nitu kese moom Babader finalement il est mort Babader dee na may ñàkkaat jom nag ñëw taxaw ci sa kanam di la laaj loo ci décidé koor baa foofu tëdd xam nga lan laa ci décidé da nga koy lakk jël cendre bi puudaroo ko yow complice am wala ngeen formal ko nga continuer di ko jaamu wala ñu siddi ko jël squelette bi may ko école yi ñu ciy def observation corps humain bonne Ça va euh, mere naa la nag mais lu ma la mere mere du tee boo defal lu dul dëgg damay dal sa kaw sa tonton saint yu ñëw na sama kër ak ay jooy te kenn génnewul rangoo ñam ku dul yow mais Sangomar yow si ban monde nga nekk lu tax ngay toroxal sa tonton di ko dàq xalaatoo ne ba nga ko dàqee dàq nga jabaram dàq nga doomam école dàq nga mbindaanam dàq nga bitig ba mu doon jëndee ravitaillement ndax bu mu sonn fayee ko ñun ñëpp dañ ciy laal xalaatoo loolu nga osé def ko et à lees mel ne li nga def comme jël mbuus la rek sànni ko fële kooku sa deret nga dàq te li mu la doon xeex ak yépp sa intérêt moo ci nekk parce que entreprise boobu ay kaymaa ñoo ko wër ndumbelaan la lekkante la ña fa nekk ñoo la mag ñoo la ëpp expérience gën laa xam terrain bi tu as besoin de lui ba ci man mii dama war a ñëw ci entreprise boobu liggéey nga am assise yëg ne say mboq ñu ngi sa dafa am woy bu Youssou Ndour woy mu ne boo nekkee ci yoonu dëgg saay-saay ku xamul ku amul wala ku mënul du la mën a bëgg woy boobu maa ko moom man xam naa yoon yu ma tegu bu baax a baax a baax ci yoonu dëgg rek laa nekk maa ko dàq j'ai mes ay gayndee ma wër ay bukkee ma wër ndumbelaan la may bëy bi nañ ma lekk bu boobaa ñu lekk bëy bu xaat muy benn deuxièmement dabi tu très mal placé di ma sermonner wala nga may conseiller wala nga ne danga may yedd xaw ma lan ngay def. mais c'est ton ami non. waaye da nga faible. sa jabar moo la jiital ñett façon mbëggeel moo am tabi mbëggeel bi ngay bëgg sa yaay wala say mbokk mbëggeel bi ngay bëgg sa xarit ak mbëggeel bi ngay bëgg sa jabar yow danga boole ñett mbëggeel yépp jox ko sa jabar moo tax nga nar a juum nag. képp ku jël ñett mbëggeel yooyu jox ko sa yaay say bët du yàgg day tas wala nga jël ñett mbëggeel yooyu jox ko sa xarit say bët du yàgg day tas wala nga jël ñett mbëggeel yooyu jox ko sa jabar tôt ou tard di nga mat sa baaraam wi cax te yow looloo la dal boo demee ba am soxna te amoo ci moom confiance bàyyi ko yaa ngi mbugal sa bopp yaa ngi torturer sa bopp te sa jabar jooju moo la ëpp xel dafa vocation moom import export la waroon di liggéey di jële ci yow di andi jële ci man di yóbbu soo demee ba fekk ma man ma taxaw nga may laaj ndax man dama doxaan sama jabar kon xàmmeetuma la kon yow da ngaa faible amul lu ma la defal juróomi at kat kaso laa tëdd biir Atlanta Georgia mu sedd guy may sàngoo sama doole ba pare nag yëkkati alal jox la ne la paasal ñibbi Sénégal nga ñëw Sénégal takk jabar ji tëdd ak moom guddi ak bëccëg man ma nekk ci biir sedd bi ak ay rabu àll laa doon dundal ci biir kaso bi ma def ko ngir yow. jabar jooju wëlbati ko tey ne la dama koy doxaan yow boo doon góor dëgg mbaay sa jabar jiitalu la da nga koy régler foofu taman sax duma ko yëg. ñëw naa laaj la. ma laaj la laa la wax. mais da nga ne dara lu leer sama loxo. bonne journée laa mais loolu du sa tontu. parce war loo maa laaj yow mais. Eh. soo ñeme sa jabar dëgg da taxaw wax ak moom da ngaa jàpp ne dama koy doxal da nga gëm dama koy doxal dabi jàppal lu la neex gëmal lu la neex yow la rek. en xam nga man lu ma jaaxal lu tax nga may gën a dugal ci profondeur bi ba tey nangu woo maa leeral et nag. Euh, nan laa lay yàlla nga ma wax. man ma toog dama la question. donc da nga mais. après concentration bi foog mu am. du ma ko def yu ñàkk fayda yooyu du ma jigéen bu ñuy tàcc ay tësante man. sa jabar nga gëm gëm ko yow la eh dabi yow nga gëm ne man damaa doxoon sa jabar ragal ma loolu ma dàq sama ndijaay ragal lu ma loolu dindu melal laa nekk ñame naa ko. dëgg naa nag sa biir wax nga ne. ay waxu bàyyil sa jabar ay boo ko wóolu. waxuma la nga bàyyi sa jabar de. non da nga ne boo ko wóolu sa bopp. yow da nga mën a bàyyi sa jabar yow. waaw parce que je l'aime. waaw chance. bonne journée. Comment vas-tu, ma fille Je vais très bien. Ah, j'espère que tu as bien dormi. Bien dormi. nga ni. fi kenn mënu fee bien dormi. lu tax. damaa bëgg a ñibbi. ñibbi fan. suma kër. jëkkër. fii du sa kër. déedéet. mais lan moo la manqué fii yow. lépp ma manqué fii. mais kenn bëggul nga dem. tàggu naa Maria mu ne ma doo dem wax naa Delia mu ne ma doo dem mais kàddu kër gi yaa ko yor xam naa boo ne bàyyi leen ko mu dem dinañ ma bàyyi ma dem dama am samay besoin foofu. lii neex Delia loolu mooy li ma neex man. waay ndaw Samba puisque Delia nee na fii ngay des ak moom ci kër gi di fanaan ak moom ci benn néeg. loolu mooy am dee dee ñu suuli ma moo ma gën a laat di fanaan ak Delia ci benn lab. dama di tëdd ak nit mu lay laaj ay conc ay xef ay nopp. ay bët bu doon bët complet sax mais per bi kese la soxla di ko mar. dama ni te nga xam loolu ngeen. jur te toi. jur ko toog ci. doo noppi ah dama ne demuloo yow tu vas rester encore ici une semaine. ngeen teg ko fan na une semaine bari na rek. neex ñu. ah déedéet déedéet. ah bon. yéen ni day am lu muy niru. d'accord. parce que lii sax lii lii lii noo ko tuddee lii. lii nan la xam. amul turke sunu waxtaan wu mujj fàttalikul. man man am na lu ma la waxoon ci man yépp naa yëpp yëpp yëpp laa fàtt ngeen xëy di ma fàttali rek man fàtte naa xoolal mu lay neex fii ngay fanaan mu lay naqdi fii ngay fanaan te sama wax dootu ci bari. je suis le maître des te lii nga xamante ni loolu laa bëgg loolu la fi am jeexul. na kay voilà. réewuñu sax dañuy réewantu fannaan hmm, fannaan hmm, dee ñu suuli moom moo ko gënal yëpp dañ kumpa moom ma ko yóbbu bëgg a doomu jàmbur rek jar na ñu lekkaale ma ci te ñoom bu ñu lay lekk sax normal nga xam ne ñi dañ lay lekk mu jeex benn yoon doo souffrir mais dañ lay mar di la siram tar sa bopp bi di metti sa tànk yi di metti sa fépp nga koy jàmbat tamit lii tamit metti nag vraiment naa leen woon ku réew dëggantaan njaay nu muy mel ku réew dëggantaan njaay laa leen di woon tey timis du ma fekk timis laay bañ mu fekk ma timis moom fu mu jotee ma tëggal leen loo xamante ne di xeex ak ñoom ñiy àtte si ñoo mooy ba ma xaale ma génn alors Sangomar ba li injustice la mënuma à chaque fois ma lay gis sa xarit nekk fi c'est quoi ça mënuma la gis yow kese je savais pas qu'il était là. toogal kii sama nawle la lii maa ko créé ngeen daje yéen ñaar combien de jours nelawuma lii tëj sama bopp bi dalay doxaan doxaanu la mais waxtaan leen ma déglu leen. sama présence fii mënu koo neex xam nga lu tax noon la te noon bi gën a bon ci noon yi nag mooy noon bi nga xam ne xamoo raison yi tax mu bañ la waaye nag dama lay gërëm ndax man sama life dama fi bëgg di ci am ay ennemis dañ may dolli jom noon dina socc bëñam ngir reetaan la may doomu gor di noble du ma nangu mukk sa bëñ yooyu nga may ree continuer di doon sama noonu y a pas de souci dabi jabar balaa ñu koo takk danga koy seet xoolaat ko bu baax a baax parce que man bëgg naa jigéen bu nga xam ne day ñaw jigéen bu nga xam ne lu yàq mu defar lu baax mu dolli mbaax waaye jigéen boo xam ni dina fekk ay xarit yu ànd démb ak barki démb xamul seen ànd fu mu commencé mu koy jéem a tas Sangomar oui continue je n'écoute que elle a raison mën naa ñàkk ci jotaay bi man jëkkër ak jabar nga yéen a ngi resto bu toll ne kacca yaatu na civilisé na neex na lekk yi neex na lekk leen ba suur ngeen naan ba màndi je vous non Sangomar dama bëgg tey bu ñu jugee fii lii kenn bañ cee waxati maag yow am na ci leneen lu ñu war a avancé que di lijjanti ay mbirum doxaanu la doxaanu la tey yaa mën a dalal sama xel bi mi ngi nii. dabi. La patience n'atténue pas l'heure. Venez du Mamba Noir. Sois patient. jigéen dañ koy suturaal. bu fekkente ne sama xarit nga. liggéey bi entreprise bari na lool. nga ñëw jàppale ma ci. liggéey laa tal mais du ay détails yu jigéen. mais tu ne crois pas que bu may liggéey si xel mu dal laa war a dugg si entreprise bi. Flora ku ma yëpp rek si yow la jaar lan ngeen nekk di jouer nii yéen ñaar boo ko bëggee gis moom du la bëgg a gis bu la bëggee gis yow doo ko bëgg a gis c'est quoi votre problème je suis patient dans la vie sooñ dem foo jëm nga heure bi jot tàgguma la dama la yëgal yow da ngay fen tàgguma la dama yëgal ah danga ma yëgal ba pare taxaw parce ni ngay def ñeme woo danga ko ñeme romb ma romb nga mbat boo rombee lay def dama lay dóor ba lay toggal xewal te baadoo la ñàkk ngor man ngay fekk fi ma toog ah yow da nga defe ni man boroom kër yooyu ñuy bañ bajaj laa ak di leen commandé sëqil sa benn tànk mu fekk beneen dama lay dóor ba ambulance dil si la et puis toogal eh toogal laa wax du xam nga ne lii agression la te bis bu ma la ci porté plainte naaj doo ko gisati eh porté plainte porté plainte yow yaa ñàkk ngor yow yaa ñàkk jom yow xam nga ni fu ñuy xase jigéen ak di fa tuutale jigéen sa genre gii moo tax te fàtte nga ni bés a ngi ci bés yi yàlla mën na maa delloowaat lépp li ma woon yow xam nga ni mar naan mi ngi lay tax a naan petit bés a ngi ñëw robinet yu ubbi di nga ruus yow. yow looy am a ci nga fàtte ne da nga jeexal. ah bon d'accord d'accord dama jeexal rombal ku jeexal kenn du ko jox cër dañ koy romb da am fit. da ngay affronté rombal boo rombee xewaar lañ lay toggal loo ca bañul bañu ma ko ci je suis là j'ai tout mon rombal nga xool buntu baa nga ne c'est pas fermé à rombal rombal waaye yow xanaa da nga dof yow Ardo mënoo yem ci bagage kese ak wàcce conteneur ngay bëgg di naan da ngay dem ci taaxura yow loo mën a ci ay déglu ma rek déglu ma rek taaxuraan dafa am borom dafa am commencement am fin te taaxuraan si boppam ay tempo li li li galan yi wax la sa tànk di war a wax te yow bu fekkee ni commencé nga léegi ba si Ndiaga Ndiaye Ali Seyna boo nga bëgg ni loolu nga du noonu. waa baax na waa baax na may ma tuuti ma woo sama gel bi moom ma ëppal importance que yow moomu daal da nga bëgg a dugg si taaxuraan. <clears throat> Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Mon cœur de ma vie, bonjour. <laughs> Euh, bonjour, mon amour, mon cœur de ma vie. Ça va? Bien, merci. Oui, oui. ah man léegi jàng naa français di am na bureau yoo xam ne boo si nekkee il faut nga jàng jàng naa ba si épi kanaar la fête de tabaski waaw waaw léegi nag dama la bëgg a xamal ni ah, dama la bëgg a yóbbu Dubaï. sama samay salaire laa lay wersi di la ko wersi ba mu mat paas ma yóbbu la Dubaï yóbbu la Amérique France euh, euh, kii nañu ko waxee sax euh, pari Paris fépp danaa dafa yóbbu si kottan maa la ko wax waaw waaw waaw awaa ah, deux heures deux heures sama doomi laa doon woo nii di wax ñu ne dafa sàmm ku feebar ma ma leen jox ne leen nañu ko wax ma jox leen ordonnance déedéet déedéet soxla woon naa la sax mën naa la ji liñ naan quand le chat n'est pas souris dansent maanaam bu fi muus bu nekkul jinax yi dañuy fecc damaa juum rek baal ma rek waaw wax la soxla bi lan ah, dama bëggoon xam nga danga nekk ñoo xam ne man toujours sama xol dafa am xol yërmande te si yaa ma ëpp yërmande fuuf ma xam ne nit ku baax nga nit ku am yërmande si nit nga man seet naa ne nga ma taxawoo da nga maa bëgg yërëm ma waaye da nga nekk ñaar ñoo xam ne dañoo bon dañoo soxor ma bëggoon nga yokkal ma tuuti sama salaire ndax salaire bi dafa xaw a ndaw si man xam nga damaa jaboot damaa jaboot doom yi bare laa am damaa jaboot. ñaata am nga am. man man ma mag noonu de soixante-quinze ans rek. am nga soixante quinze ans. waaw maanaam juróom-ñaar fukk ak juróom. si sori nga sori nga sori nga sori nga ah soixante quinze ans sori nga sant yàlla de. amaguma quatre vingt. waaw léegi dama la yombal mbir mi. Ah, mag buur la dafa am yenn liggéey yoo xam ne boo koy liggéey ba yenn at yi dangay ngay noppaliku. napp góor xam nga góor dafa judd rekk di liggéey ngir teral waajur walla ngir toppatoo njaboot. moo tax góor dafa sonn waaye boo demee ba am yenn at yi nag da ngay dem retraite nga toog noppaliku jaamu yàlla xaar rek maa ngi ñëw dama lay defal lu gën a neex. Hmm. dama lay organiser pot. luy pot. organiser fi fête bu ndaw. invité ñin ñu ñëw ci service bi d'accord ñu defal la ay boissons defal la ay beignets tàccu la woyal la feccal la tàccu la gunge la. nga dem retraite nga noppalu ko. déedéet déedéet directeur bu jàpp ci rek retraité moom baaxul si man. soixante-quinze ans da a retraité. waaw ma retraité bu retraité mooy maanaam nga arrêté liggéey a nga noppalu waaw. déedéet déedéet bàyyi ma si service bi bu man bu ma arrêté du baax mukk dimbali ma rek directeur war di yàlla sarax ma rek jàppale ma te yàlla rek a tax ak Seydina moom yonent bi dimbali ma directeur ku baax nga man xam naa ni daa ma dimbali bàyyi ma rek ma sar non mënuma laa bàyyi soixante-quinze ans mënuma jël responsabilité bi nga jékki-jékki daanu fii crise cardiaque dal dee suñuy loxo bu wóorul da ngay dem sa njaboot ñu uuf la. man addiye mage waaye yaram magewul xanaa yi seetoo ma baax sama yax yi yax yi dafa dëgër këj këj këj. ñu war dem retraite ma jaagala ak ma baro dew ma fenn jar na ma ma liggéey la ba ba nga ba nga jóge si service waaye fenn laa demul. oto bi ma gis ne du oto DG. moom la mu ngi si kaw. ah waay. Ahmed Top lenn laa la xamal xaw ma loo koy doyee de waaye bay boo nga tey bis boo ko waxee affaire yokk salaire da lay yóbbu retraite de xel mi tey xelam yëpp a tey retraite yóbbu retraite rek la xewal. man je ne comprends rien du tout mais yow laay laaj lan laa pour lan nga yeex booy bi nañ ko sacrifier mu jóge ci société bi loolu laa la bëgg a xamal. Sangomar mais nga défini le fait que mu dàq Saint-Louis di deretam di nijaayam tu penses que moo ko tey dama ne la ce n'est pas pour rien que j'ai demandé à Sangomar de prendre ma fille. Sangomar tant qu'elle sera avec ma fille day yàqule rek un le renvoi de son oncle suñ doon waxtaan fii ba ëllëg man ak yow du ma que tu es ma princesse tu es la fleur matinale de mon cœur <laughs> euh, bu dee kaw c'est déjà réglé oui waxtaan nag moom je l'ai même secoué et accepté na rester ci kër gi pendant au moins une semaine elle va dormir avec toi ça c'est déjà nickel d'accord voilà. man Kaawu Naboucha ñoruma dama bëggoon xam. Ah. mag bi nga waxtaanal ba war koo war ngir li nekk ci man dañ ban mag la ak kañ nga ko fas yéenee war. dama bëgg wax yooyu ak xalaat yooyu sa yaay di def sa bopp bi nga dindi ko. yoo xam nga ne sa yaay dafa am problème du tout le temps ñu nekk ah fekk yow xale bu ndaw il a toujours que de problème yoo xam nga sama ménage ni mu tëddee woon dara baaxu ci ma maslaar comme ça rek sa yaay ci boppam moo am problème au niveau de la tête est que comprendre bi li ma lay wax bul yooyu mooy wax di ko dugal sa bopp bi ne day comprendre quand même faut arrêter. nga war a wan mi ngi nii toog ak i biir jaawoon yow sañ nga maa war yow est-ce que sañ nga maa war desalatuma la dara dara laal desalatu yow war ngaa xoole sama jabar ci indi faram fii ci biir kër gi. te doo ci wax dara gis nga faram boobu dinaa ko te dinaa taal kër gi lu mën la wax wa nga kaa mën a gëm ndaxte damaa bari doole. waaw yow boo defee loolu danga may arrangé man man nii ngay rendre service puisque man maa xam kooku le lu tax ma boole ko sama doom je sais le pourquoi.